Assalamualaikum, mbok yi ñu ngi leen di nuyu di leen eh, ziaré di ñaanal ñëpp euh tay nak dañu ñëw di waxtaane am ci sa wërsek bu mu jur iñaan wa ah, tay si loolu lañu ñuy manam nit ku ti wërsëgam ba nga xam jur nako jur nako ko iñaan nga gis ci tamit ñoo xam ne tey eh, mënuñoo supporter mënuñu supporter wërsëgu jàmbur ah, mënu ñu supporter li yalla def manam motax dañ ciy pexe di ci xeex di ci def lu ne rek pour doomu aadama boobu wërsëgam boobu mu am mu ñàkk maanaam lépp rek mu ngi tegu ci ñàkk ngëm ngi ñàkk gëm yàlla waaw te tey ci loolu lañu bëgg a waxtaane waaw te boo xoolee loolu léegi partout la fépp la am nit ñi dañoo soxor ñu si bari yéenewuñu yéenewuñu yéene yéen ñu si bari sax mën naa leen duñu yéenante jàmm yenn saa da ngay am ben affaire wax ko nit nit ki sax du si content te da la koy nëbb waaw nga gis suulante bi yakalante bi lorante bi def lu bon li yeen saa nga ñew ba ci kër doomu aadama bi sax soti fa dara pour doomu aadama bi affaire lu mu am mu yak wala nga gis muy dugg ci ay projet projet té la nelaw bëggo dara am bax wa lepp lu mu dugg rek yow yaangi wër pour yak xam nga di dem fu ne di dugg fu ne yenn saa nga mu am oto sax nga jël oto bi nii boo ci duggee am loo fa bàyyi pour oto bi bañati ko jariñ nga xam ne kon àdduna bi doy na waar bari na lu fi yàq waaw bari na fi lu fi lor loolu tey lañu bëgg ñëpp teewloondoo affaire yi ñu dégloondoo ko pour ñu mën ci jariñu bu baax a baax waaw. bon man sama point de vue des fois nit dina yàkkamti wax sagam ndax ñàkk ñàkk da koy def. conséquences yi tamit bari na mën nga dem par exemple dem def benn euh, liggéey boo xamante ne c'est illicite maanaam liggéey boo xamante ne teguwul si yoon jubul quoi par exemple kon ay jaay yàmba jaay drogue ak yooyu yëpp conséquence prison conséquence nga dof yu nekk xaj na si quoi. laay loolu yëpp si domaine bu ñàkk la genre ñàkk ñàkk baaxul quoi. certes nag yàlla moom mooy tracer destin yi moom wax dëgg fa yàlla yàkkamti tamit baaxul may li nga wax rek des fois nag sabablu tamit baax na genre yàlla bu ñu ñàkk exemple mën nga xool benn kër famille benn famille polygame am aawa am ñaareel doomu aawa bi day tekk doomu ñaareel bi bañ a tekki loolu day indi soxor iñaan jalousie ñi amul kut ko kul dañuy bëgg a am dana li jaral tam ñu dem def ay sacrifice mooy li nga wax woo ay jinde bind ay turu yàlla di sacrifier ay nit yépp te conséquences yi dafa bëri quoi mooy li shérif wax rek conséquences yi dafa bëri. des fois tamit wërsëg dina nekk ci loxo keneen di gis ñaari nit kenn ki toujours day dem ci kenn ki mu koy jox di ko may di ko may ki koy may tamit des fois dina dem sax ba ni kii moom mën nañ ñaante genre kii dafa lakkale. te fekk ne du loolu wërsëg kooku noonu moom moo nekk ci loxoom daf kaa war a jox. xam nga loolu li mu jur dafa bari boo xoolee kër yu bari neexul ba neexul kër yu bari boo seetee kër yu bari si Sénégal Sénégal amul yooyu ak yi Afrique Afrique rek sax lañuy wax Afrique parce que affaire bi Afrique la gën a am kër yu bari lan ngay gis mooy. liggéeyante yow yow yàkkamti seen wërsëg parfois da ngay gis ne kii am na lii amoo ko nga ne non du ko am naa ko xeex ba lii mu am mu yàqu mu jaral la yendoo yendootoo fanaanalatoo fépp foo mën a awale li nga koy aw ngay awale ba moom mu yàqule yaa ngi ko fay awale waaw dafa dema dema dema dem ba nga xam ne sax même Mahdi bi ñëw xam nga ne am na liggéey am na liggéey de am na liggéey bu rëy waaw nit ñaa ngi liggéeyante eh, nit ñaa ngi yéenante loo xam ne ni baaxul yenn saa yi nga wax benn affaire nii rek nga gis ne doomu aadama bi li nga ko wax xol bi moom moom moo d'accord si li nga wax parfois ngay dimbali nit sax nit kooku gis na ndimbal bi nga koy dimbali yow waroo ko def moom moo waroon def ndimbal mi mu dem liggéey la pour yow sa ndimbal dakk te bu dakkee moom du am nga xam ne soxor dafa dépassé li soxor boobu noonu des fois ñàkk a doylu lay doon quoi waaw parce que des fois la plupart des gens yi ñuy gis fii nii peut-être nañ gis seen morom yi am na ñum amuñu waaw loolu léegi ñàkk a doyal boobu mën na leen dugal ci ay tooxi doon yoo xamante ni comme Aïcha li mu wax rek mën na nekk prison mën na nekk voilà def leneen loo xamante ne amaana après safaan lay doon si ñoom quoi. la am waaw fépp la xëccoonte bi te kenn ku si nekk bala yàlla bindee am na lu mu def si yow ne yow loolu loo mën a xëccoo si àdduna moom lim la bindal loolu ngay am nga gis ne àdduna bi. Nyom dañ ne yàlla ya def li waaye li nga def d'accorduma si nyom non la ñuy demee dañ naan la yow yàlla yaa def waaw waaye nga def ni yalla mu ne waaw mu ne d'accorduma si waaw moo koy jaral mu ne nag léegi comme man d'accorduma si man tamit damay wut samay pexe waaw samay pexe pour li ngay wax bu ma ko mënta dindi tamit ma tardel ko loolu dafa bari si jamono bi si nit ñi dafa bari waaw am na ñoo xam ne duñ la liggéey de waaye seen xol moo lay yàqal danga lay ni da leen di nettali benn affaire rek seen xol ne rënjëng rënjëng boobu muy def mooy yàq na xam nga loolu lu garaaw la waaw te loolu dafa bari si jamono bi dafa bari ñenn ñi boo solee ab yére sax seen xol nee na rënjëng moo tax parfois da ngay sol yére nga jég-jég rek yére bi xotteeku waaw nga gis ne nit ki ni mu xolé yére bi ak ni mu sidul d'accordé mom moy tax lolu am xam nga lolu dafa dema dem ba dafa yàq aduna bi léegi aduna bi da ngay gis kenn ku su nek da nga defe ne yow bo ñaanul rek bo ñaanul do ci genn te lolu lu ko waral mom moy liggéeyante bi nit ñi dem yow bëggo bëggo dem yow calculer woo sa wërsëg naka ngay def pour avancer si pour jëm kanam mais yaa ngi calculer tout le temps wërsëgu waa ji pour noo koy kale waaw yaa ngi calculer tout le temps waa ji naka la def ba avancer yaa ngi calculer fi mu aw ba avancer dinaa awaat feneen ba kale ko waaw te nit ku si nekk parfois di nga kale doomu aadama boo xam ne yow ci loxoom ngay mujj bari na fi bari na fi ñoo xam ne dañuy kale nit. ñoo xam ne ci loxoom la seen loxo la ñuy mujj te àdduna moo tax lu jara suuraale la nit ñi dañu war a suuraale àdduna dañu war a suuraale àdduna dañoo war a xam nan la ñuy doxalee parce que parfois nga gis ñu bari nga kale nit di nit muy màgg ci kale nga koy kale muy màgg ci kale bi nga kay yàkkal muy màgg ci yàkkal ba dema dem ba am li muy am legi mom bu xalaté li nga xamné yow mom nga def pour réussite am bañ am loolu lan lay nara jul ci xolam est-ce que dina am yene dimbali la yow budé nit ko nit nit ko dul japp la budé nit kuy japp mom dula dimbali mais ku dul japp day japp né ah xel xel ye yemoon rek mu japp la motax ci jamono bi nit ñi dañu war a delluwaat ginnaaw delloo seen xel waaw dellu ndaxte jamono ji boo xoolee ki ko yàq yëpp loolu la wala bokk bokk na ci dangay gis ñoo xam ne alal bi sax yàkkamte wërsëg boobu nga wax mooy tax sax dootuñ am jot sax pour jaamu yàlla yàkkamti wërsëg boobu noonu mooy tax dañuy dem ba dugg ci ay tuuxi duuna ñuy dem di seetlu di jabaraan ñii di dem di di def ay gas ay reen di def fàtt yàlla bi nga xam ne moom mooy joxe wërsëg bi ñiy jël ay nomb yu kenn xamul takk si ndigg li fàtte yàlla ñii di daw guddi ak bëccëg di ut alal di yàkkamti wëta wërsëg xamuñ ne yàlla moo yor wërsëg ko mi ko yalla wax risq inda allahi wal fadl inda rasulullahi yalla yer wërsëg sayyidina Muhammad yu ngi ni donc bo nekkee nit da nga war di dundé conscience tranquille te conscience tranquille ta wessu nga gëm yalla te doylu lim la may nga baña diru mbag nga xamné tollowoo leen ndax ñu bari loolu mën ci dugal dangay gis koo xam ne danga koy gis yàlla may na ko wala ay waajuram am nañ ñuy solu wala ñuy def loo xam ne bëgg nga ko waaye sa ngor bu fekkee ne sa ngor matul dangay ngay jéem a bëgg a forcer pour bëtt barrage bi léegi su ko defee léegi yow soo doon xëy di am fukk nga ne xeeb nga fukk yooyu yàlla li la yàlla di jox da nga bëgg a forcer barrage bi pour su ko ko defee da indi yeneen yeneen yeneen i mbir ngay def loo xam ne yàlla bëgg ko waaw conséquences yi mën na la jural lu bari benn boo xëccoo xëccoo ko ba yàlla jox joxandoo la ko lépp benn sa fan mën naa gàtt ndax li nga naroon a dund bu la ko yàlla joxee li nga waroon dund trente yàlla jox la ko ci sa quinze ans wala ci sa vingt ans laata na temps yi jot nga dee ndax sa farat day mat parce que ku sa wërsëg mat nga dee waaw léegi su ko defee conséquences yi mën na jural lu bari mën na dem ba ngay def loo xam ne yàlla ngay lu ci mel ni bërëb yu bon yëpp boo xoolee ñi koy def ñàkk doylu la ak yàkkamti seen wërsëg vraiment thème yi na solo. dañu war a dellu ginnaaw delloo seen xel yen saa nga gis ñoo xamne fune lañuy tour bo dekk ak ñom si kër da ngay son dañuy tour gas suul tour gas suul te li def am amul ben jar nit ku nek li nga wara def ci sa bop nga ko wara def waye waro ko def jàmbur waaw ci sa bop nga wara def nga xol ne ah man de li mo tax avancer wu ma nga fexé ba xex loolu mu avancer si nga xol xamne ah man de li mako defé sama yokkute lay doon ci lu bax nga dem def ko waye tay da nga non non wa ki la tek bet ki warul avancer sama kaw waaw ah, warul avancer wa ah, donte daño bok wala donte daf ma jege ci sama xarit parce que parfois day am day am ño xamné say xarit lañ doon nga don len lu bon ñi doon ño dekkal nga yéene len lu bon ñi doon ño xamné ni yow duñu sa dara da nga len xol ci mbedd mi ni rek seen sa mbir neexu len rek nga nga ki waaw. Ah nga nga nga nga yenn saay nga gis yenn saay nga am oto nga gis na ko xamne auto bi sax euh, du ci d'accord waaw bo dawale sa auto ni mu mu xol na ah, way ki auto bi d'accord mu ci dem tib tib tibbaroowu oto bi dem yobbu ci serigne pour rek oto bobu bañ la jariñ xam nga man fi euh, keur Massar rek gis na ci sama ben way lan la mo netali mu ne mom dafa am ben oto saa yu saa yooyu génn saa yuy génn rek di dugg si oto bi maanaam ka mu jàkkaar lool bu gisee muy dugg rek day muy dugg si oto bi rek day day tëj ay buntam ba waa ji dem mu door ci jiwaat ay buntam xam nga maanaam supporté amul supporté amul supporté waa ji ne yor na oto nga xam ne adduna bi see lu garaaw la waaw nit ñi dañu war a delloo si waat seen xel ñoo xam ne li am yàlla moo ko def Yalla mom moko def du doomu adam xam nga comme yalla moko def boy xex li gor gi wax rek da ngay xex ak yalla waye xex ak nit ki wa ngi si bu baax wa tem bi am solo manam ñi nga xam dañuy yakam di seen wërsëg ñoñu dañuy delu rek ci kep ko xam tane yalla yàlla la eh, def ci yow li nga wara am ba nga de inshallah rabbi ding ko am. kon jaara fi nga war jaar rek te bul waaw yàlla lu war a ñëw dina ñëw incha allah rabbi waaw data dañ ne wërsëg soo ko yàkkamtee mu dëpp waaw te dañ ne wërsëg moom pool la rek ku si ne mën a gën nga jot waaw kon jar jar yàkkamti defal li war def tënk ko ci njub bàyyi lépp ci loxoy yàlla te tey góor góorlu di def lu lu lay may daal def lu lay may waaw mais yàkkamti moom jaaru ko waaw yàkkamti jaaru ko teel rek te xam ne lu yàlla def rek noonu la te lu yàlla bind sa jëb bala nga dee dañ ko am kon ànd ak gëm yàlla rek yaa jaarale ko ci yoon bu du jar ngay sacrifier wala ngay dugg ci waat dugg wala ngay doxal na war doxal du ko jar waaw li nga xëy daal moo di mën a boo mooy xëy daal liggéey sàkku am am mais nag am-am ci loxo yàlla la nekk bul yaakaar ne yow yaa war may sa bopp waaw loolu jul doxe noonu jul moom da doylu wéeru wéer lépp ci loxo yàlla li nga daal mooy xëy di sabablu yàlla moo lay fekk si waaw. ñi nga xam ne dañuy yàkkamti seen wërsëg ñooñu dañuy dellu rek ci képp ko xam te ni yàlla bind la eh, def ci yow li li nga war a am bala nga dee incha allah rabbi di ko am. kon jaare fi nga a jaar rek te bul yàkkamte waaw lu war a ñëw dina ñëw incha allah rabbi waaw data dañ ne wërsëg mu dëpp dañ ne moom pool la ku si mën a gën nga jot waaw kon jar jar yàkkamti defal li nga def tënk ko ci njub bàyyi lépp ci loxoy yàlla te tey tey góorgóorlu di def lu looy lu lay may daal def lu lay may waaw mais yàkkamti moom jaaru ko waaw yàkkamti jaaru ko teel rek te xam ne lu yàlla def rek noonu la te lu yàlla bind sa jëf bala nga dañ ko am ko ànd ak gëm yàlla rek jaa jaarale ko ci yoon bu du jar ngay sacrifier wala ngay dugg ci warta dugg wala ngay doxal na warta doxal du ko jar waaw li nga xëy daal moo di mën a boo mënee xëy daal liggéey sàkku am am mais nak am-am ci loxo yalla nek bu yaakar yau ne yow ya war a may sa bop waaw lolu jul doxé no jul moom da ngay doylu wéru wér lepp ci loxo yalla li nga man dal moy xey di sabablu yalla mo lay fekk ci waaw. yalla bo sété dafa bari ci aduna dafa bari ci aduna euh ñuy ñaan dal yalla musal ñu yalla delo wat ci aduna bi jam lepp lu lu nga xam ne ni Euh, mo nek walu iñaan yalla jëlee ko ci aduna bi jëlee ko ci xolu doomu adam yi parce que iñaan bu dalé nit rek nit ki amna na choono na choono euh du mu do noppalu euh, te tout le temps si loola naxari rek ci ngay nek légui nak ñu ngi ñaan dal yow yalla yow mi nga xam ne yow yaay bur bi yalla nang ko fi jëlee ci daraja yonent euh, ñu ngi tagoto kon Euh, di am jaajëfal ñëpp ba beneen émission incha allah